commencé nak ma ngi leen di ñaan yeen ñi sétane vidéo bi yépp ngeen like vidéo bi ngeen bëss fi baram bi nek kuko ko partager nga partager ko ndax ñi ñuy waxal ñu jot ci muy ñett ño xamni ni euh, genn nañu di wax ci daara di yak deru daara ta daara wu len daara buggu len daara wu len ndax daara dafa am ay façon nit yu mu soxla ta façon nit yi mu soxla bokku ñu ci ñett ñoo xamni nak ay nit lañ ñu siiw ci Sénégal ñu xam leen Sénégal nak dafa am lo xamni dañ ko ñu ci bari dañ ko baaxlo baaxoo mooy bu ñu siiwee rek fokk ñu leen neex man nañ ko def ngir lan xaalis mu genn kenn ka naan dañ ma violé ci daara keneen ka ci dess naan dama don yalwaan lu nekk ñu di wax ngir yaq deru daara ta alors que ñi dañ leena fay pour ñu yaq deru daara ndax amna ci ku genn ci ñom ñi day leral te ci biir leeral gi muy leeral boo déggee da ngay xam ni moom li nit ñi di wax naan dañu leen a fay pour ñu yàq deru daara dëgg la parce que moom wax na ni xawma benn société la wax xawma lu demee noonu ñoo leen woow pour def loo leen loolu ñu def loolu it di wane ni ñoom dañ leen a fay mais nag daara léegi nag bu njëkk dañ leen a bàyyi woon ak internet bi lu leen neex ngeen nekk ci internet bi di ko wax daara ñu bàyyi leen ndax boobu dañoo féetewoo woon daara ji féetewoo liggéeyal alquranul karim mais léegi nag mayatuñu kenn ngay toog ci internet bi wala ngay toog ci télévision di wax ci diine ji wala ngay wax ci daara ak ñi séq daara lenn lu négatif ndax daara amul lu négatif léegi la rek waaye ku sa doom të nga ni daara ja ku sa doom taxawaalu ba yàq nga ni daara ja boo indee ci daara ji sëriñu daara bi sonn daj lu nekk sangaat ko solal ko beneen mbubu génne ko def ci boppam alquranul karim bu génnee ñi ko doon ŋàññi démb ak doon ko song ñooñu ñoom ñooy wëlbatiku di topp ci ginnaawam